jottali yónnente Cheikh Mouhamadou Mountakha yi nga xam ne wax na ko ba ci jiitu mooy nee na mi ngi fàttali taalibe Serigne Touba yëpp la nga xam ne waxoon na ko ci kàddoom nee na ko ñëpp bàyyi xel mooy ñi dëkk ci dëkk bi ak ñi ñëw ci dëkk bi nee na ñi dëkk ci dëkk bi nee na ñoo am tawféexi dëkk ak Serigne Touba na ñoom nag nañ xam ne li ñuy wut lépp. ci suñ biir lañ ko mën a amee nee na ñi ñi ñëw ci dëkk bi itam di fekk si dëkk bi te àdduna yékkati leen nee na nañ xam ne lu ñu wut ci dëkk bi dañ ko wutee ci Sëñ Tuubaa ndax nee na bu ñu ko wut bu ñu ko wutee ci nit ñi duñ ko am walla feneen la leen di yóbbu foo xam ne euh, danay danay yàq seen mission ñoom yàq mission nit ñi li leen booleeg Sëriñ Tuubaa kon nee na ñëpp nañu bàyyi xel ñaar yooyu ñi ñëw ci dëkk bi lu ko ñor la nag noonu la ko bamtu ñi ñëw ci dëkk bi nee buñ jéem a sàkkoo wut ci dëkk bi dara lu wut wuti ko Sëriñ Tuubaa ñi nekk ñi ñe nee na ñi nekk ci dëkk bi itam buñ nongu buñ nongu kenn di leen wute wute wute wute dëkk bi ñoom itam nañ doyloo Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo leen fi tax ñoo ñaar bu ko ñëpp defee day noppaloo kon loola mu dellusi ci la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon waa daayira Hizbut Tarqiyyah ne leen lépp leen lépp luñ leen jaayee Serigne Touba na ko nangoo jënd waaye yéen bu leen nangoo jaayee Serigne Touba dara loolu di ab bind boo xam ne ñëpp ko war a teg seen kanam ba ca mujj nag mooy li sëriñ boo xam ne naa ko fàttali. mooy bayit boobu rek wala xad amurru ala la imu yes la aqulu laa yaani nii wax moom la la cee noppal mooy seet fa nga jëm rek ba bañ koo tal waaye ku dugg ci tontonte ay wax loolu ak yàq rek la jur ak wuññeente ay ay te loolu amul njëriñ ndax kii nga xam ne moom la ñuy màggal guddeem te nekk ci weeram muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alxaan tëggu ko ci lenn lu may wa innaka la ala xuluqin azim kon nag sëriñ bi nee na makaarim axlaax jooju nga xam ne rasulullahi ci la ko suñ borom tagge te sëriñ Tuubaa def ci xasida yu bari bari yoo xam ne wa innaka la ala xuluqin azim la ko tënke neen nañ ci gën a tënku te xam ne makaarim axlaax rek am solo bu la nit ki lebeleef safaan nee na dee ko delloo lu baax dellu ca la way juróom bu tedd ba daa jàngale Serigne Saliou daa wax ne waxtu wooy ànd ak nit na nga ànd ak moom ci sa jikko waaye bul ànd moom ci jikko ñaar booy ànd nit tam ànd bi na nga ko sa bopp bu leen ko jox jëlaate bu ko bàyyi ñaar bu bu leen ko jox jalaate mooy noo ma def ma def lañ ma def lañ boo ko ko bàyyee fu ko neex mu yemale ko dadaa wax ne nit ku ne itam na ngay seet ci moom la la neex ci moom te bañ a seet la naqari ci moom ndax nit koo gis ku ne am na lu la neex ci moom am lu la naqari ci moom kon nag nit ñi ngi xewal léegi bu nit defee junni yu baax bu defee benn boo xam ne jubu jubuwu leen rek ñu fàtte lépp loolu du makaarim axlaaq makaarim axlaaq mooy bu fekkente nit bu fekkee wóor na la daa jom te nattab liw daa jum itam nga fexe ba jéggal ko ak xam seet lu baax la nga xam ci moom nga seet wax ko loolu mooy li am solo waaye lii xew ci jamono léegi euh, occidental yi ñoo ko indi bu nga gisee sëriñ bi daa bañ daa bañ lépp ci la tab bi tanasur moo indi yëpp ay wax sa xalaat ak kenn ku ci ne jàpp ne la jub ci sam xel da nga war a doxe te loolu du diine mbirum Sëriñ Tuubaa du noonu ak taalibe ak taalibe sëñ Saliou daa wax ne ak taalibe am xel du koo mat ndax àll si ne yoomu noonu bil xew yaa tënk sa bopp nit ki gëm lu mu gisut tegu ci bëtam bu fekkente ne day bëgg dem ka àjjana kenn da ci teguñ bëtam àjjana bu fekkee da ngay dem ci xel rek àjjana kenn mus ci teg sa bët sawara kenn mus ci teg sa bët kenn mus ci teg dekk kenn mus ci teg sa bët da koo gëm kon diine nañ xam ne diine du xelum kese dina dafa am ay fondement fondement yu wóor yoo xam ne lu ko téye bul xool la jub ci sam nga jàpp ne dangaa war a àtte sa diine ci sam xel junni nit bu ñu newoon fii kenn ku ci ne ak sa xalaatu bopp mooy xor xoriyatu taabir bi ñuy wax loolu nag boo ci xasee ba dugg loo du sotti kon loolu xew na ci jamono waaye buñ ci roy tubaab yi tontonte yeeg wax yeeg yëpp yoon mu kenn xamulewul kenn xamewu leen woon loolu kenn xamewu leen woon wax yu bari yoon wi ci jëf lañ leen daan nawe te fuñ àgg itam jëf moo ñu fa àggale waaye yaakaar naa booy xool njabootu Sëñ Tuubaa gi sax ñi ci suñ def boon defaloon fasaaxa ñu néew neew la kon yoon wi ay wax téyewu ko te saa suñ gënee ŋàññi yoon yi gën a ŋàññi Sëriñ tuwaa seen positif day gën a yokk nit ñi seen positif Sëriñ Tuubaa ak seen doog ci moom màggal gi wees wane na ko kenn mënu leen la ci mbirum Sëriñ Tuubaa moo tax jërul sax sonn jëru xalaat ndax lu dox lu ëpp téeméeri at fu ne jaar na fa fu ne jaar lañ ko fa pexe yu ne def nañ ko waaye saa suñ xëyee mbirum Sëriñ Tuubaa di nga nu yokk loolu ajuwu ci nit ñun ñi fi ne ñëpp di taalibe Sëriñ Tuubaa buñ fi bàyyikondoo woon tey tey ñëpp de jógandoo fi dem àjjana yit ndax loolu Sëriñ Tuubaa ko di moo ñu ko dig moo ko diggate ci lam ñu doom laa ko digg buñ ko defoon ne dara du sikki coon yi ña Sëriñ Tuubaa di indi ñoo ñoo ñooy dàq fuuf ñi ko ñi ko indi ñi fi newoon loolu ko mbirum sëñ bi na duñ ñun waaye sëñ bi la kon loolu na ko na ko ñëpp gën a bàyyi xel gën a góor góorgóorlu ci yitte yi ak positif yi te xam ne maam Cheikh Ibra Fall ci mujjug sëriñ bi fekk ne sëriñ bi ci njaarim bi mu agsee fekk sëriñ bi sëriñ bi di wax ak nit bi mu agsee di wax sëñ bi ne cal di wax a kooka ba sëñ bi jeexal na ko Ibra Fall loo doon wax noonu mu ne ko Mbàkke yi damaa amul jaaxle li ma doon laaj mooy ndax deseeti nañ fi dara ndax deseeti nañ fi dara ndax xéewal yi dafa bari bëpp mu ne ko ndax deseeti nañ fi dara sëñ bi ne ko Ibra Fall la ma la la ma waxante woon yow ci Mbàkke Kajoor sama mbir pay gépp ëllëg lay jëm lu ngeen seen ci àdduna rek li li ndab luñ duy ba mu fees la liy tuuroo ci ndab li moom ngeen di seen ci àdduna kon loolu mooy mbirum suñ tuura euh, Cheikh Issa Dieng mas naa ñëw ci sëriñ bi ne ko man kat Mbàkke damaa jaaxle ndax lislaam li mu wax ci ñaq ñaqu alali gor ñaq alali góor li ci lislaam wax diis na diisaay goo xam ne daal um na sama bopp da jaaxal na ma kon ñii nga ñu boolee ñu topp ñu ñu topp ñu ngir sa jëmm jaaxal na ma ba teel nelaw ma doon laaj nag ba xam ñooña nu ñu def ak ñoom te am na ñoo xam ne kat àgg nañ ci li ñuy wax ne azhabtum tayyibatikum fi hayatikum fi hayatikum dunya loolu itam jaaxal na ma mën naa ñëw laaj si la ko sëñ bi ne ko Issa de lii nga laaj war na la yaag yaag war na ku mel ne yow sëriñ bi ne ko Issa sama mbir mii sama borom li ma ci xamoon mooy haza atauna fam nun awam sik bi xëy xisaab Cheikh Issa suñ borom da ko defaloon tawfiix ci sëriñ Tuubaa fu ko sëñ mas gis rek day bëgg li daloon sëñ Gaawaan moo ko daloon sëñ bi marsan lu nee na daana ko laaj sëñ bi loolu ci li may bëgg nett ci sëriñ son bi laa ko dégg daa ma sa bis Mbàkke ne ko ne ko Mbàkke li ma jaaxal de mooy ñi nga jo ñi nga may ñëpp mooy ceex gi ñi ñi nga ñi nga defar ñëpp tofal leen booloo buñ la waroon nag buñ la waroon nag sëñ bi ne teg ba caag mën na ko isaa nit bu wàcce woon fii dara ndax da da lu mu xiif xiif dana dana dana xiif ba xelam demaat ci wàccu ma mënu ko déer mën na ko li ma leen jox noonu la demee ci man kon loolu mooy mbirum Sëriñ Tuubaa gi itam euh, Cheikh Issa Diagne at mi ko sëriñ bi njëkk wootee ndax ni ma ko ni ñu koy waxee ci histoire rek sëriñ bi at mi mu ko njëkkee def da ko defal boppam moo ko defal boppam woote ko moo ko njëkk defal boppam mooy gàtt boo ko sëñ bu Buso joxoon tam doonoon aw bëy te sëñ bi soppali ko am am xaaf dégg ngeen histoire jël del si waat waaye boobu siñ bootiwu ko at ma ca topp nag diggam sëñ bi fekk na mu wax ko loolu ñu bari dégg nañu ko ci soxna Amin Tamar way juru sëñ Moussa Massamba ak sëñ Mamour moom fekkee woon na jotaay ba sax bi biñ sëlmale tisbaar Cheikh Issa Dieng dafa ñëw indi bool yu bari bari xam nga ni mu daa dàkki suñ biir nga xam ne teraanga yi njëkk dem daal foog naa ne bu ma jóodu Cheikh Issa ko fa andi yi njëkk dem ci màggal gi muy bool yu bari bari sëriñ bi ne ko Issa ana loo jublu woon ci lii mu ne ko xanaa jëm laa teralal saggan ñi ak màggal sa bis bi sëñ bi ne ko sëñ bi ne ko Issa xanaa da ngay njëkkante man ci ci sama bis bi mu ne ko déedéet Mbàkke njëkkante ma yow sa bis bi de dama lay jéem a teral eh, teral sa bis bi sëñ bi ne tekk ba ci àgg mu ne ko Issa de sama bis bii de danaa dox ab diir bu gàtt ci sama dëkk ba ci Touba mm-hmm. ci sama dëkk ba ci Touba mbooloo bi ak mbindee fi dana fa bari bari goo xam ne kurut man mi ko woote ak yàlla mi ko binde mënta xam limum nit ñenum toll kon loolu mooy lii kon Sëñ Tuubaa sëñ bi daa daa wax rek gis bi daa neex dara ëmp ko kon nag nañ sant yàlla ci tawféex jim ñu defal ba lépp ñu àgg sant nañ daal sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem lépp nag bëgg rek ak ñaan ci barke Sëñ Tuubaa liggéey bi ñu koy liggéeyal yàlla nañu suñu Tuubaa dimbale ba bànneex bañ cee tàbbi bakkan bañ cee tàbbi ñu bañ cee gis suñu bopp ndax jërte gis sa bopp wat ndax liggéey boo xam ne li may wax màggal gi dox na ba ko sëriñ bi wootee léegi day mel léegi mu jege téeméeri at boobu ba nëgëni muy dox te wóor nañu ne danañ faatu lu yàgg muy dox kon màggal yi kenn doonu ci dara lépp Sëriñ Tuubaa dañ xam ne ku ñu wax ne doon nga ci dara rek dañ lay dañoo bëggul la neex daa màggal yi kenn kenn ci dara bu ko kenn organisé wutoon du tee mu nosu da Sëriñ Saliou daa wax naan màgget bi de daa nekk organisé ko jëfewut ndax booy xool ca yooyu jamono boo kii kii dafa diine yi ëpp ñu woon ay ñeent fukk juróom fukk mu a délégation yëpp mooy këri diine yi ak waa nguur gi ñu ci des ñëpp nag taalibe yu siyaare seenub sëriñ la bu yu siyaare sëriñ yu siyaare nag lu mu fa fekk baax na kon ñoom gis nga ni ñu xamee àdduna te lu ñu la jàngal rek boo ci doxee gis ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp du ñaan ñu yàgg ko def te buñ ci àggatee jàmm itam luñ ci daa defaree ñu gën ko fonk ndax day ndigalu Sëriñ Tuubaa ndigalu Sëriñ Tuubaa loo xam ne moo ko defal boppam daa ko jëf te it teraanga yi mu ci digle woon tam dara jiitu ko ci ndax li ma wax rek léegi léeg dañuy jéem a layar Sëñ Tuubaa dañuy jéem a layar Sëñ Tuubaa ba ba ba njuumte di ñu ci bëgg dal ndax léegi booy xool ñiy communiqué ñëpp dangay ngay ñuy wax ne nañ dundal màggal gi ci jàng alxuraan ak xasida loolu dëgg la baax na lool ndax waa Kër Sëñ Tuubaa ko santaane waa Kër Sëñ Tuubaa ñoo ko santaane tàmbalee ci Cheikh Mamadou Farid bi mu ko wootee ak Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Saliou ak Cheikh ba ci Serigne Saliou ba ci sët yi leen wóotu di Cheikh Mamadou Lamine Bara ak Cheikh Sidi Moukhtar bay Cheikh Mamadou Mountakha waaye nañ xam ne kat la jiitu ci ndigalu Sëriñ Tuubaa mooy bernde loolu nag kon day mel ne nit ñi lépp complexe moo leen ci bëgg dugal mooy bëgg jéem a wax ak ñi nga xam ne gëmuñ Sëriñ Tuubaa tax ngay jéema a layal Sëriñ Tuubaa te suñ borom moom mbiram wees noonu lu ci ne boo demee ci tabaski tabaski euh, am xar la ñuy rey tabaski nit jaamuwu ci yàlla lu gën lu ko gënal rendi rendi xar mi kon suñ borom moom lu mu digle rek moo xam xekk ma tax mu def ko na nga xam ne suñ Tuubaa ba mu koy digle lam ci njëkk defal boppam santaane ko mooy bernde yi daa waxoon ne na ma ci ñëpp santal yàlla daal koy leeral nag sant la yàlla kon lu ci waay man tàmbalee ci ganaar ba ci gëlëm tolool dégg ngeen ko ci lam ñu doom Sëriñ Tuubaa yi loolaa wér loolaa jógee Sëriñ Tuubaa li ci des lépp nag lu baax la luñ ci dolli loo xam ne lu baax la ñëpp ko war a fonk waaye nag buñ jéem a layal Sëriñ ci njuumte di ñu bëgg dal te loolu gis naa ne njuum ci ngi ci bëgg am ndax ñëpp ñu koy wax xëy na lu baax lañ jublu waaye bëgg ñi nga xam ne gëmul siñ bi ñu bëgg leen wan ne Sëriñ Tuubaa kat bi mu koy woote alxuraan la ko woote xasida loolu lu baax la waaye nag la ko sintuwaa digle woon buñ ci comp complexe dugal ndax boo demee tey Makka Makkatul Mukarram euh, Kaaba ga Hajarul Aswad diggante Safa ak Marwa loolu boo ko xoolan cim xel mënoo ko leer loolu diine ci wax moo bindoo noonu diine du loo xam ne lépp danga koy teg cim xel diine nag mabniyun ala naqli la ala munasabati naqli kon nañ xam ne li am solo rek mooy na ko Sëriñ Tuubaa digle woon nañ fexe bañ cee appal bañ cee yisal fexe ba na ko Sëriñ Tuubaa digle woon soppiku jamono bu ñu dugal ci jéem a dugg ci ay puukare wala loo xam ne dana ko naxal donte mbirum Sëriñ Tuubaa dara mënu ko naxal ndax suñ borom ko tàggaleeg loolu képp ko bëgg a naxalit ndax gëdd la weesu yow waaye mbirum suñ moom day dox di wéy rek asalaamaaleykum